bisimilah barki maam Cheikh Ibrahima Fall asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki muriti mbokki taalibe yi ñu ngi leen di siyaar tey jiital siyaar bi di ñaanal sëriñ di Fall moom sëriñ Modou Mbend ñaan saa borom yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér naka noonu ñu ngi ñaanal sangam bu tedd ba di sëriñ Muntaxa Basiru ak mbooleen njabootu borom Tuubaa mbooleen njabootu maam Cheikh Fall gi yëpp rek di siyaar Baye Moustapha Seck di suñu borom yàggal ko. te dolli taxawaay bi nga xamante ne ànd na ko mboolem njabootu borom Tuubaa gi njabootu maam Cheikh Fall gi yëpp rek di siyaar tamit waa daaru Bairé Fall di leen ñaanal jàmm ak xéwal yaatu si barki maam Cheikh Fall di tamit waa daara gëm kennal maam Cheikh Fall Lamp nga xamante ne liggéey boobu ñu liggéeyal maam Cheikh Fall Lamp ci daara ji moo waral tey suñ teewaay bi fii ci kër Serigne Amdi Fall moom Serigne Modou Mbend ah, ngir yaatal fii ndigal loo xamante ni jëlee nañ ko Serigne bi jëm ci li nga xamante ne mooy tabaski bi nga xamante ne yéene ja nga xamante ne ñoom lañ ko daan defee sëñ Cheikh mu wàcc tey ba sëriñ am di Modou Mbend ñu amoon si yéene ju kawe joo xamante ne nii ab lim lañ jaayante woon ak sëriñ bi ñëw sàkku ci moom ndigal sëriñ bi jox ñu ndigal nañu am ngeen ci ndigal te lépp looleen daan def rek na ngeen def loo xamante ni lu gën a metti la loolu lañ bëggoon ñëw nag yaatal pas moo ñu ñor di bañ mën a tàbbi ci ne moo ñu ñor lim boo xamante ne takk nañ ko bëgg jox sëriñ bi ak fi ñu ko tënk lépp ñaan nag sëriñ bi kàttan lañu ba loolee lépp jàppani tabarkeel ci barki maam Cheikh Fall xam naa ne damay bàyyi sëriñ Moustapha Seck mi nga xamante ne daanaka moom war woon teew samay wax waaye dama koy doon ubbil rek ngir su ko defee lépp gën a taw féexi incha allah rabbi barke maam Cheikh Fall aousu billahi min aseytaan rajim bismillahi rahmani rahim waman biha daxala fi amrin fala yakunu xaiban wala munsafila nasartani fa innaka nasiru mahawta ay bi innaka albasir ثم الصلاة على المختار من مدر خير البرية من باك ومبتسم للمصطفى كليتي كل سنة مطهن صلاة وحباب الحسنة يا ربنا حبلي بحق الكوثر يمن الحياة وأجر كسر أمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلفة ينوي teewlu bokki jullit yi bokki taalibe yi góor ak jigéen mag ndaw ñi ci biir réew mi ak ñi ci bitim réew seenu taalibe di mbokkum taalibe ci ñenn ñi tudd Mouhamadou Moustapha Seck Baye Fall moom sëñ Amdy Khady Falloum Serif Assane Fall moo leen di nuyu di leen nuyoo nag fii ci kër sang bu tedd bii di maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina di Cheikh Momadou Moustapha Fall te nu gën koo miin ci sëriñ Amdi Cheikh Modou Mbenda Fall yal na fi yàgg te wér te ànd ak rakkam ak ay doomam ak taalibe yi ba nu gën a mën a taxawal liggéeyu maam si Ibrahima Fall bi ñu saytu di ko liggéeyale borom Touba Xaadimu Rasuul te liggéey buñ ci sumb ñu ngi ko jëlee ci seen maam ja muy maam si Ibrahima Fall Baabul Muridiina mu jële ko ci borom Touba Xaadimu Rasuul ndax maam si Ibrahima Fall daawul jëfe ludul lu ko borom Touba digal njobootu maam Cheikh Ibrahima Fall gii itam loo dégg ñu di ci yëngu baa ñu di ko def bu laaj fenn fu ñu ko jëlee ñu ngi ko jëlee ci ndigal lu borom Touba mu sa digal seen maam maam Cheikh Ibrahima Fall ba bàyyi ko fi seeni wajur di ko def ñu téye ko ba nëgëni ci biir nuyoo bi nag li nuyoo bi ëmb nuyoo yooyu yëpp. nuy nuyoo tey siyaara sang bu tedd bi nga xam ni muy Seydi Saddaat di Cheikh Mouhamadul Muntaqa Mbàkke mu Cheikh Mouhamadul Bachir mu borom Touba Xaadimu Rasuul njobootu maam si Ibrahima Fall gépp nag tàmbalee ci sëñ am di Fall di Cheikh Mouhamadou Moustapha Fall mu Cheikh Modou Mbende mii sëñ am di Xadi Fallum Sëriñ Asan ak mbolim seen rak yi ñu bokkal maam Cheikh Ibrahima Fall ak seen doom ñepp nga and nak di ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha te di ko lul kuy wax as hadu an la ilaha illallah wa sadu an Muhammad rasulullah sa borom baye ko fitimu and mu ànd ko biir ak fekkee tal ba lolu jalle barab bi nu muy kër maam Cheikh Ibrahima Fall gi ci jannatul mahwa ci Touba mbacke ci saalub sëriñ am di xadi Fall mu Cheikh Modou Mbenda mi nga xam te mooy maam si Ibrahima Fall waaye nag ci ndigalam bi ñu ñëwee lañu sëñ ne Moustapha mu ne Fall ñu jox nañ leen ndigal nga ànd ak fere yii muy daayira gëm te kennal maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina daayira bi nag Cheikh Modou Fallou kan mii nekk ci bopp bi ak njaboot gi ko àndal ñii ñu ngi ci biir réew mi ñii ñu ngi bitim réew waaye nag naw gi leen sëñ bi naw mooy yëg na ni ñi ci biir réew mi ak ñi ci bitim réew ñoo bokk benn pos-pos ñoo bokk génn bëgg ñoo bokk génn jublu te mooy liggéeyal maam si Ibrahima Fall rek ba am ngërëmam kon mu ngi ne koy ñaanal yal na ko sama borom defal ndax ko baax ki moo wax ne rek daan war rahmatan lay ba di xëyre mi dunya wa ma fiha jami am àdduna ak li ci biiram am ngërëmul yàlla gën sëñ baa ngeen koy ñaanal lu ko bokk am taxawaay bi tey mooy ndigal lu mag lii nu dëgmal muy tabaski yi tabaski nag ba ko maam si Ibrahima Fall jëkkee jox ko baax ki ak léegi ab diir la ndax at mamu sukkee ci ko baax ki Jibbel ko bopam ca mbacke kadior ca lako ko joxe am tabaski du ndiarim de du ndar de du kees de du ndand de mbacke kadior la ba nga xamanteni jibluna ci ñaar fukki fan wa ca wéru koor ku nu ngul ko am njébbal ñu wéru koor wa fukki fan ye ya jeex mu wéru wa dee ba woowee koro jàllee aw diggee ca sës digg woowee saa si Ibrahima Fall dafa daal di song àll ba tàmbalee gor tàmbalee liggéey fa ko tàmbalee liggéeyal te boobu borom Touba moom béyluwul ay tool waaye nag moom wut fu muy jëfale borom Touba Xaadimu Rasul ba nga xamante ni dem nañ ci Tabaski wa saa si Ibrahima Fall ak buum la jël takk ko ca baatam ñëw ni ko baax ki te Tabaski daa jot te Ibrahima moo joxe doomam ngir diglu sa borom kon nag dama la jox sa bopp ngi diglu sama borom loolee ca la ko baax ki digale mu daal di wuti nag am xar ma maam Ibrahima xalilullahi wutan jibbal ko boromam moom mu wattul ko ruug doomam joojee ca la maam si Ibrahima Fall moom it daal di wut am xar ci ñaqu boppam bu mu daan liggéey daal di koy jox borom Touba Xaadimu Rasuul ci ndigalu borom Touba ngir mu. wotteel ko ak ruug boppam googee te loolu nag maam si Ibrahima Fall yàgg naa def lu mel noonu ndax fi mu ne nii jit bi ngeen tuddee Daaru Bayre Fall TV na xam ni Daaru Bayre baatu arab la baatu alxuraan laatam du baatu wolof ndax ba nga xamante ni ci gàttal àndandoo yonti yàlla Muusaa yi def nañu seen njuumte googee ba jéem a jaamu ku dul seen borom ci ginnaaw bu yontu yàlla Moussa defee xalwatu ba mu defoon xalwatu loo ba mu dirsee dañ leen a diggante nañu tuub ci kan lañu tuub fa tuubu ila baarikum baari joojin faqtulu lañ ca teg fa nag mooy nañu tuub ci yàlla mi nga xamante ni bind gi mu bind jaam ñi su doon ab usine la baat bi ñu wax albaari mooy mooy mooy mooy xel ma moo tax alxuraan ni fa tuubu ila baarikum faqtulu anfusikum soo dellee ci alxuraan loolu lay wax salaamun muminun muhayminun asisul jabar mutakabir subhanallahi am ajurkun huwa lahul xaaliqul baari al musaabiru baari joojee maam si Ibrahima Fall ne kon nag fa tuubu ila baarikum ñoom lañ leen waxal waaye bu ñu noppee nañ jël seen bakkan saa maam si Fall daal di sëñ ci ab tool bu mag. tudde ko daarul baari ca kees mu ñun ñi ñi miinul ñi miinul loxatu arabee nag ni daaru bay rek waaye daarul baari mu comme nag saamam si faani nañ fi nekk di liggéey di joxe di di wëq suñuy poos di joxe ndax wëq moo gën a yomb faq faq mooy tër ñoo ñooña nag li tax ñu jéggal leen ba ñu waxee astaghfirullah assi ba noppi dañ leen di tër rendi leen njëpp ñu doog leen nangu ak tuub saamante Ibrahima Fall nag ni daal di ko daal di koy wottee ci noonu bu bakkan yi demul deret yi demul sunu ñàkk a dem ak sunu alal wëq wëq nag moo gën a moo gën a moo gën a jàppandi fakk kon kon moo tax ba mu joxee xar moom tam xar ma na xarum yonte jote woon bakkanu doom ja di la noonu la xarum maam si fa mu jëkk moomee noonu la ko jotele ak ak bakkan ak room ga mu jébbaram borom Tuuba te te drogue des wi ak jëmm ji di di liggéeyal borom Touba kon loola ba mu amee bisub tabaski la loolee di dox ba léegi muy aama assasine assasine nag boo ko xoolee am na ñu ni mille mille huit cent quatre-vingt-onze la am na ñu ni quatre-vingt-douze waaye lu mu ci mën a doon ah mille huit cent quatre-vingt-un am nañu nit 1881 la am nañu 1882 waaye kon loola yàgg na ba 2002 loolu boo ko xoolee téeméeri at yu romb lay doon maam si Ibrahima Fall di ko def fu mu dem bu waxtu wi jotee mu dajale tabaski yooyu njoboot gi yokk di ko jox borom Touba Xaadimu Rasuul mu di ko ko nangul ba ñëpp nag di ci roy ndax maam Cheikh Ibrahima Fall mooy royukaay bi baat bii may bëgg a wax na Cheikh moom du fallilu mooy doo dégg kenn ko ci àddina ne maam Ibrahima Fall lii mu defa Sëñ ci saa maam kenn du ko wax doo dégg itam ko ci àddina te doon am murit ne saa maam Cheikh Ibrahima Fall saa maam royul si yara Fall ca dara moom kenn du ko wax royul ci kenn dara te ku ko royul ci dara doo doonu murit mbir mi ci la tàmbali tabaski mi ba loolu amee mu nekk di ko doxal ba ni mu ñibbi seen njaareem di ko doxal ba 1930 ànd ak seex ak ay doomam ñu nga xam te ni dëgëre nañu di ko doxal ba bàyyi ko fi 1930 1930 ak léegi nag juróom-ñeent fukki at la ak ñaar muy 92 ans. quatre-vingt-douze ans yooyee Cheikh Modou Moustapha Fall toog doon xalifa généralu Baye Fall di dajale tabaski yi di ko jox Cheikh Mamadou Moustapha Mbacké 1900 1930 ji mu toogee moom ba Mamadou Moustapha Fall ba 1945 loolu boo ko xoolee fukki at ak juróom la ñu xilaafa 30 ba 45 ba mu toogee 1930 ba 45 sëñ Modou Moustapha Mbacké bàyyi ko fi sëñ Fallou toog 1946 sëriñ Fallou fedd li ndigal la sëriñ Touba joxoon maam Cheikh Ibrahima Fall. mu di ko jëfandikoo sëñ Modou Moussa Mbacke joxoon ko sëñ Moussa Fall mu di ko jëfandiku jëfandikoo sëñ Fallu daal di wax Cheikh Momadou Moustapha Fall mi ñu mi ñu duppee sëñ Modou Moustapha Fall mii fi noonu di sëñ am dim sëñ Modou Benda Fall sëñ Fallu Mbacke ne ko na nga ma indil juróom benn fukki xar yu tabaski te jamono booba bekkoor mën ngaa am ay junni waaye doo gis am xar ndax booba xar xare yombut sëñ Moodu Moustapha Fall tàmbali ci tund wi nu nekk Touba Mbacke Bawol Géeb Touba Fall Kawsara Gojo Ngigis ba tund wi daj juróom benn fukki gàtt yi matul ndax xar ci boppam moo amut jëmm ja jëmmi xar ba mu daal di dem kees dajale bàyyi faale kees ni leen yéen waa kees da a bëgg a tëbaski ma jéeg wala déet ndax man Momadou Moustapha Fall de juróom benn fukki gàtt yi ma sëñ Fallu Mbàkke sama sang bi laaj su matul man Cheikh Moustapha Fall man duma tabaski bàyyi faal yi daw dagg buumi xari tabaski yi indil ko ñii waññ di wañ ba ne ko faal lim bi mat na ba ëpp la dajale ca penku ak li ñu dajale ca saw ba ñu ko xoolee lim bi ëpp na mu ni lim bi ëpp na ñu ne waaw mu ne kon toog leen tuuti ma waxtaan ak yéen ba ñu ñëpp toogee sëñ Moustapha dani ak càng genn la borom Touba jël na ko ak waa këram ak taalibe rek a fi des ku ñu ko jël wàcc la ñàkk nga ñu songu taalibe gi bu kon bu ñu demee ba ren rek gëm te kennal maam si Ibrahima Fall seen jiit di ba tey di Cheikh Mouhamadul Fadel Cheikh Mouhamadul Fadel mi itam di liggéey Cheikh Moustapha Fall ngir jëmme maam Cheikh Ibrahima Fall mu ne noonu kat ay ndaw la ñu te kàddu googu dégg nañu ko ci Baye Moustapha Seck danoo fas yéene nag noonu ndax suñ am di xarit Fall rakk sëñ bii musi musi Serigne Assane Fall ne na lu waay yokkul yaa ko wàññi nga ne ñoom nag ñu ni juróom benn fukki gàtt yooyee Serigne Fall loolu laajal Cheikh Moustapha Fall te Cheikh Moustapha Fall dayan sasa ba teg taran nee na ñoom ñii dañ ciy bëgg a teg fanweeri gàtt ak ñaar ca sas wa muy juróom ñeent fukki gàtt ak ñaar euh, tollook lim bi fi maam Cheikh Ibrahima Fall bàyyi ko 30 ba ren jii ba 2000 2022 nee ñu loolu mooy seen positif positif bu mag positif la dégg ngeen looloo waaw ah, lim ba ko suñ falu laajan Cheikh moom du fàllu sa turandoo laajan ko Cheikh Modou Moustapha Fall turandoo sang bii di sunu sang muy juróom benn fukki gàtt yi daayira gëm te kennal maam si Ibrahima Fall si suñ Fall mi di njiit li fii ba bitim réew ñu ne nag ñoom lim boobee ñoom fas nañ ci yéen a diggal ndigalu suñ Fall la fas nañ ci yéen a jàppali Cheikh Moustapha Fall moomee ak Cheikh Moustapha ba ci Cheikh Moustapha mii ak mboolem ak mboolem xalifa yi dox ci diggante yi ci ci yëpp di doomi maam si Ibrahima Fall di sëti maam si Ibrahima Fall ba ci moom mii ba ci suñ Cheikh jëmm fi bàyyi ko yal na yàlla yokk ay leeram ak ngërëmam nee ñu ne nag loolu la ñu bëgg lim boobu di juróom benn fukki gàtt dañ cee bëgg a teg fanweeri gàtt ak ñaar maanaam sante ko yàlla mi leen boole ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina gii jibbal ko sang bii di sëñ am di Fall mu Cheikh Modou Mbenda di maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina loolu nag positif la am murid nag sëñ Abdou Khari Mbacke danoon ak taalibe ñaar doonga la positif ak mbir loolu sëñ Abdou Karim Mbàkke sëñ Tuubaa ko waxan ci biir xilaafa gi ni positif rek mooy di ak taalibe ak mbir daal ni murit bi day am positif ba ñu def ci moom mbir daal ni mbir nag doolu loo xam ne dañuy jàkkaarloo moom naa lee mooy mbir waaye murid bi bu amee positif ba ñu def ci moom mbir moom mi ñu def ci moom mbir dina xam ni defees na ci moom mbir ku ko gis dina xam ni kii def nañ ci yow mbir kon nag bu ngeen amee positifu sang bu tedd bii di am ci Ibrahima Fall te mat maam si Ibrahima Fall lool te ñëppit nangol ko ko ay rakkam ay doomam ak taalibe yi ak ku ko xaman démb moom mii ci ak sellam ak ku maandoom ak ku doyloom ak bëgg gu mu bëgg maam si Ibrahima Fall te dara mosul koo ñor lu yoon wi bu ngeen bu ngeen amee positif ci fas fas yéene ànd ak moom ci liggéey maam si Ibrahima Fall gii yéen itam na ngeen am yaakaar ne di ngeen defal mbir mbir mbir mi nag weesuwul lu ngeen ci bëgg te dogu ci di ngeen ko ci am kon na na taxaw na ngeen gën a yokk positif bi koor gi sëñ baa nga sant ci ni ngeen indee woon liggéey koor gi muy diw gi ngeen indee woon ci koor gi ak yi fi jaar mu mu ay addee ba noppi mënu leena mënu leena muñ sëriñ bi su ngeen am su ngeen su ngeen dee dajale dara ngir mu doon ab lim gi sëriñ bi addee di ngeen ñëw indi ko diggante bi sax bu yéexee di ngeen wut addee ñëw yeesal seen cofeel ak seen bëgg ci maam si ibrahim Fall kon yal na ko yàlla def kon nag seen momadou fallel ah, soñña baa ngoog ñi nga bokkal daayira bi gëm te kennal maam si ibrahim Fall yaa yaa ngi yaa ngi leen di soñ ginnaaw boo soññee sa bopp ci ndigalu sëriñ bi ndax bi mu ñëwee léegi nga woo ma ndax may mag laata damaa bañ a juum damaa bañ a juum bi mu ñëwee ci ku baax ki ak doomam ngi tedd yi fi nekk man leen Cheikh moo du kat ci daayira gëm te kenn maa fi Ibrahima Fall la ma woo la ngeen bàyyi mu tafaa noo ko bëggee defee kon ni noo bëggee soññee soññeel ko sëriñ bi sëriñ bi moo leen jox ndigal ñu soññe soññe ña ci biirum réew ak ñi ci bitim réew kon nag soññe baa ngoog ci ndigalu Cheikh Momadou Moustapha Fall moom Cheikh Modou Fall mbend moom maam Cheikh Ibrahima Fall Baabul mu Muridiina mi nga xamante ni moo fi maam Cheikh Ibrahima Fall tey di ñaan nag ci barkeem ak ci barkeem waajur yi jàll ak ci barkeem magam yi fi jaar ak ci barkeem rakkam yi mu nekk ak doom yi nu ànd koog ñoom ay xati xati xati xati xat te yàgg ko jibba Cheikh Mamadou Mountakha te mu yàgg nu ko nangul te nu am ci tawféex ak taysiir sëñ Amdi Xadim rakkam ji nag nee na sëñ Amdi Xadim Sëriñ Asan Fall nee na loolu ci soññe bi la bokk ngena yoon wi nyakodon ko doon ña ko doon taxawal taxawal nañ ko ba noppi muy borom tuba ak man seera rafa am di neena na yoon wi jub na leer na nañ sës na rek ca yalla ku yegul da nga soobu te doxo ku réer da nga jadd kon nak nan soobu te dox te baña jadd aji yegale di maam si Ibra Fall ak njabootam gi ñu nu bàyyee yegg nañu dégg ñu yeggale le Sëñ Tuubaa da wax ni fa man bi waa silin wasal wa man tawassala bi aksi in fasal kon ko aju ci ko yegg yeggati kenn aju yegg na muy maam si Ibra Fall seen njaboot bi ridan wa rahmatan mina layil badi xayra mina dunya wa ma fiha jami yaa rabbana habli bi aqil kawsar min hayati wa amin taraktumaa kaana lii bil ba i muttaqiyan maa inda man li yàq di aajati laana fataahu haaba yaar saaxu yaa maaliki liftahu waab lii wa suqni bikun laana <clears throat> day xi asil aajilan bil bisri maa madadin atta oxima li diini laahi arkaana yasiru joo i li tuubaa wax mi ni waxi haasal waraawati tibli sama iskaana lakk sama wal araadi wal awaahu bila musarikan deeru masirkuhu baana ajab wasali bi taslimin ala sanadin muhammadin wa tabli faixen baana yaa rabbana halli bi la faal barke suñu am di xadi faal barke suñu am di xadi ñang ko ànd nañ ko ba sori yal na ànd bi yàgg te sax te ànd ko wér ëngërëmul maam si Ibrahima faal liggéey bii la dëgmal muy liggéey tabaski bii ndax day loo xam te ni ci seen maam ngeen ko jëleewal bu baax ci digal ko ko ngeen di ko def ba nëgëni ma am na wenn xeetu soñña boo xam ni sa turandoowu teddoo seen Moodu Moustapha Fall moo ko soññewoon ca kees waaw bii bi ku baax ci demee 30 mu di ko jox sang bu tedd ba Cheikh Mamadou Moustapha Mbacké alayhi salatu wasalaam ba 1945 Cheikh Moustapha dem 1946 maanaam tabaski fi gi gitu, fi gitu jëkk fekk Serigne Fallou dafa dafa dafa dafa digal Cheikh Mamadou Moustapha Fall ni ko na ma indi juróom benn fukki gàtt waaw juróom benn fukki gàtt hmm. te booba gàtt jafe lool loo mën a yëpp xaalis gis gàtt ndax dafa bekkoor gàtt bi mënta am Cheikh Modou Moustapha Sall dajale waa tund wii Njaaréem Mbàkke Touba Géb Touba Fall Kawsara Dar Rahim Ndigis ñëpp waaye juróom benn fukki gàtt yi mel ni mënta daje ndax gàtt amul mu dem Thiès daal ni yéen waa Thiès yéen Baye Fall Thiès damaa damay laaj ndax di ngeen bëgg Tabaski ma jéeg man Moustapha Fall bu la déet ñu ne ko déedéet Fall mu ne man Moustapha Fall bi juróom benn fukki gàtt yi ma sëñ Fallu Mbàkke sama sang bi laaj su ma man du ma Tabaski damay jéeg Baye Fall daal daw dagg buumi xar yi daal di koy indil ñu wàññi di wàññi di wàññi ba ni ko lim bi ëpp na la ñu wàññi fee ak li ñu wàññi fii lii bi ëpp na Cheikh Mamadou Taa Fall si turandoo baax la si wuy jur daal di wax ni kon yëgg leen suuf ma wax ak yéen ñëpp yegg suuf booba sama baay mooy kàddoom sëñ Mamadou Taa Fall wax ni ak càng genn la borom Touba jël na ko ak waa këram ak taaliba dong moom moo ci des ku ñu ko jëfat ci la ñàkk na ma leen ko na moo mm-hmm. moom Baay Faal tabaski menu war mooy mi ni jóg sëriñ bi ndax gis naa ci benn bataaxel boo xam ne sëriñ moom rek taala faal mu ko bind bind nañ ko sa sa mag ju baax de sëriñ moomu du fadilu faal si mu tamit yal na yàlla yokk ay leeram ni ko bataaxel boobu si moom rek taala ne tabaski yii ngeen di rey ci seen kër yi tabaski yi ni jóg sëñ bi moo ko gën a yey ci noonu kon nag noonu noonu bàyyi faal yépp nanu bokk xamandoo ne fu Baay Faal nekk yi dégg tabaski yi ñuy rey ci sunu kër yi tabaski yi ñuy jox sëriñ bi moo ko gën a yey ca noonu ndax la si Moodu Moustapha Fall waxam mooy boo demee moom ab sang la te noonu danoo jaayante ak sëriñ bi def def def jaami njabootu kër sëriñ Touba kon noonu tabaski warul sang bi la wax njabootu suñu Touba dana tabaski war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 TV, la première scène qui valorise la vie et l'œuvre de Mamsier Ibrahim Fall.